président Macky Sall wóoloo jox ma ministère des xam naa ne kóolute la ma war koo teral ba mu namm ba ma ko mënta def rek ma def ci loolu beneen mbir bi ci nekk mooy damay ñaan yàlla toujours fii ma nekk ma jaamu si yàlla bu jeexee ma continuer dund ma yàlla may dund moo tax ba ma fi nekkee amul benn chantier bu may dem di fa teg xeer di naxaate moo tax lii ñu sumb nii maa ngi ñaan sëñ Moutala sëñ Moutaka xalif général des mourides nga xam ne moom la ñu yaakaar yàlla na ñu yaanam topp ba li ñu bëgg ñu am te du am taro taro sama ñëw fii ci ndigalu président Macky Sall laa fi ñëw monsieur li jël kaw sax waaye jiital naa ko parce que mos naa wax ci bi mu jël rajo ne li muy wax xamuñ ci dara waaye comme xamoon naa ne dinañ daje Mbacké ma am fi ay xarit parce que balaa may wax dara di gërëm le mouvement sportif rencontré naa leen léegi ñëpp samay xarit la ci gën a bëri ba ma leen di xam boobu xamuñu fu ndomba tànk nag yàlla def ñu seq teranga heure bu ñu ma mosee invité Mbacké dama leen naan du ma mënumaa ñëw parce que bu ñu ma laajee ma am ma tontu parce que ministre des sports ngay déglu Mbàkke élu yi responsable yi maire yi ñëpp ñu toll naan stade ñu invité la fi nga ñëw xale yi ne stade stade amoon na teg seen loolu désespoir la yéen. moo tax man leen bàyyi leen waxtu ma waree ñëw danaa ñëw. tey nag ñëw naa parce dama am i pexe. tey ñëw naa parce que président Macky Sall moo ma ne urgence laa bëgg ci stade Mbacké. waaye la ca tegu mooy xalif général des mourides dafa nekk jiite waaw boo dee jawriñ bu dégg ndigal na ki la dénk wax la ngay taalibe murit xalif ba wax la képp ku xam àdduna war ngaa xam ne yaa ko mën a amul place moo tax ñu ànd fii ak directeur des infrastructures bi nga xamante ne moom mooy tabax stade yi ànd ki ak entrepreneur yi surtout mbay Faye ba nga xamante ni moo gagné lu ëpp ci suñu marché pour ñu ñëw xool si stade Mbacké li ma wax nag war naa mën a tax ngeen xam ne moo tax yónnee wu parce que lii naa réseaux sociaux yi sax ñu ne jaruloon muy ñëw parce que comme commencé ko ñu tabax et waaye li am solo mooy kilifa bu la yónnee da am matu dem fam la yónnee ba xam lu fa nekk ba ñu demee ci stade bi gis naa fa loo xamante ne bi may ñëw sama xel newu ci woon d'ailleurs le projet sera modifié parce que ñun bi ñu ñëw dañ foogoon ne amul grille de protection amul benn existant tey xam nañ ne am na grille de protection y a de l'argent qui a été mais loolu kenn du ko dindi ci projet bi dañ koy transformer permettre euh, stade Mbacké bii mu am gazon synthétique synthétique mais mu am ay projecteur waaye am turbine bu mucc ay bu mun a yal ni parce que Mbacké dëkk bu am importance la ci wàllu population waaye waruñoo yem foofu parce que bi man dajeeg ñi def ay arts martiaux dañu jàmbat fu ñu koy defee techniciens yi dañu ne dañu bëgg a def salle suuf mën na leen bu leen def salle suuf xoolaat leen ko bu ngeen mën a def salle bu mag ci côté mu permettre ñiy def taekwondo karaté ñëpp ñu mën fay dem waaye warta yem foofu parce am na ndaw ñoo xam dañu handball di basket plateau multifonctionnel war nañu ko def ñaar ba ñett ci biir bi xam ne loolu moom mooy consistance su projet bi ñu bëgg def démarrer fii ci Mbacké boo déggee ma ne leen priorité mooy démarrage du stade de c'est pas synonyme d'arrêter tous les chantiers. Mais c'est montrer effectivement que ça fait partie des plus urgents projet du département des te loolu samay instruction c'est très clair dinaa leen jox numéro bi nga xamante ne moo yore infrastructure dinaa leen ko jox ngeen di ko woo topp ko fu mu toll moo xam ne toll na fa pour que stade bi démarre li gënoon a métti mooy fexe ba am financement. li gënoon a métti mooy jot ci yenn ndigal yi tey loolu lépp yemb na li ci des suñu loxo la ne te ñu ngi ñaan ni ñu yàlla doon dimbale mu dimbalewaat ñu noonu. parce que bokk naa ci ñi gëm ne lu nit def yàlla lu nit def mu neex doomu aadama yi rek yàlla ci dugal loxo kon su nit ñi gërëm ministre des sports c'est parce que yàllaa ñu dimbale te yàlla nag bu ñu doon dimbale feneen. ba ñëw dëkku Serigne Touba nag defe naa ndimbal gi dina yokk pour que yëf yi gën a gaaw gën a baax pour répondre aux préoccupations des sportifs de Mbacké en tout cas je suis très fier